bismillaahi rahmaani rahiim ñu naa mënu sant yàlla julli ci bi di ñaanal suñu président sunu grand frère Moustapha Niass yàlla na fi yàgg wér ku ñaanal réew mi nga ñaanal ndax lu tax ma wax ko mooy yàlla ba mu bëggee Sénégal lanu jox ku mel ni président Macky sàll jox ñu ku mel ni président Moustapha Niass ndax ñoom ñaar bu ñu nekkee ci réew mi am naa yaakaar jàmm rek am ci réew mi te ban fi toogee léegi jàmm rek fi am yal na yàlla gën leen doole monsieur le ministre yow ñoo bokk joobaas bokk zone Safi ñu xam say compétence xam sa njàmbaar xam sa dëggu xam sa wér nga bokk bu baax itam kon boo ñëwee fii lan lay jëkk wax mooy dala ñaanal yan bi diis na. mais nag yal na yàlla teeñ la monsieur le ministre maa ngi commencé ci impasse yi impense yi ci wàllu aéroport de jas ndax booy xool impact na huit mille hectares mais je crois que quatre mille ectare ngeen jël te les huit mille hectares yi nga xam ne impacté nañ ko kër yi nga xam ne ku ci bëgg a tabax sa doo bëgg a tabax ndax décret bi nga xamante ne moo fii moo leen fi jiitu woon ñu xool ba xam loolu fan ngeen ci toll ci wàllu impasse aussi nee nañu ñi nga xam ne ñoo féetee booru Kër Mousse ak ñi féetee booru Kër jas impasse yi ñu leen di fay population bi nee nañu benn ñu féete côté Kër Mousse ñoo ëppale ñu féetee côté jas may laaj ndax loolu lu ko waral lan la te xam naa ne dinaa ci am tontu monsieur le ministre taxe yi nga xamante ne nii dañ koo seetlu woon ci. aéroport bi nga xam ne moo doon aéroport euh, bu Dakar si cent hectares defe naa la toll seen aéroport Dakar bi mais tax yi fa daan taxi ay décaré daan doon mosoo fa gis TH. lan moo waral loolu parce que TH yi bu ñu demoon foofu aéroport de aéroport de Dakar dañ leen fay tere te ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk dans le département région de Thiès yore TH ñun aéroport bi nga xamante ne mooy aéroport bu de Diass euh, vraiment gis ñu suñu bopp ci côté boobu. may laajte ci côté boobu nan ngeen ci mën a jàppale ba loolu war a mën a am ci loolu itam am nañu ay tourisme ay ay xale yoo xam ne dañuy am ay tourisme yoo xam te ay touriste seeni xarit lay doon dañ leen war depuis France ñu jël si ma bu leen jël see dañuy mujj obligé wu di làqu ci ginnaaw aéroport bi pour que bu buñ leen gisul ñu ñëw jël ko bañ a dugg parking yu demee noonu wala ñu leen koy tere ñooñu aussi ñu mel comme ni ñuy defar Sénégal Tour nga xam dañuy am autorisation park park fa ba seen client ñooñu jël leen ñooñu est-ce que mënuñu leen seetal benn euh, autoriser leen wala seetal leen ñu ne man defal ba nu war a mën a parquer ci aéroport bi jël seen clients yi nga xam dañ leen di woo depuis la France wala Belgique wala Allemagne wala feneen. monsieur le ministre l'erreur de Saly du yow ndax Saly dañ koo daggoo ñu ne station balnéaire ñu jël nit ñi ñu dëkk ak population bi yoon amul amoon na sax forêt ku seetlu Saly bu jëkk ba amoon na benn forêt boo xam c'était une forêt classée. mais yooyu yëpp mujj nañ koo jaay def koy résidence effectivement loolu fekku leen fi mais station balnéaire bi nga xamante ni moom ngeen di war a def fii ci Pointe Sarène ñu ngi leen di ñaan ngeen sécuriser ko mu war a nekk si 243 hectares keroog defe naa ban koy déclassé man bokkoon naa ci commission bi nga xamante ne nii moo ci doon déclassé 243 yu hectares yu ñu déclassé d'ailleurs am na sax déjà ay nit yu ko ma yu fa dëkk ñooñu xam naa am ngeen kii pour toxal leen mais li ñu leen di ñaan mooy. na ngeen ko defar noo xamante ne nii bu mu mel ni erreur bu sali am parce que ali sali erreur la amul yoon bu jógee fenn dem ba géej amul nit ñi ak euh, hôtel yi ñoo jaxasoo kon doontul station balnéaire foore amoon na fa mais fii nan ñu dimbale ngir yàlla ndax boo gisoon li la ñu jaayoon ko peut-être affaire politique la woon ñu jaay forêt classée bu baaj bu sali boobu mais bii moom sécuriser leen ko ba forêt classée bi ngeen fa war a def ci station balnéaire bi yoon yi nga xamante ne ñoo joore jóge foofu dem ba géej muy yaatu ba moom daal population bi nanu dëkk fii ci suuf station ba nekk ca kaw sécurité mën a am foofu bu baax monsieur le ministre loolu dañ la koy demandé ñu ngi lay demandé aussi monsieur le ministre toujours rek ci l'aéroport de jas ci laas les emplois xaaral ma nuyu sama xarit Aliou ñu ngi balaa sama temps jeex ak euh, bëggoon naa nuyu ñëpp parce que defe naa aéroport Diass ak le directeur de l'aéroport sunu xarit Mbodj nuyu aussi Pape Ma Awa Diouf nuyu eh, directeur u LAS maa ngi nuyu ñëpp daal xam ne bu temps bi jeexee ci li mu war a wax dana baax beneen bi monsieur le ministre ma ne ay aéroport de Diass maa ngi woon ci wàllu maa ngi sax fàtte sax fi ma wax moom mais impasse bi ah emploi LAS maa ngi woon ci LAS bon LAS même SAPCO bëgg naa wax ci laa wax ci sab ko SAPCO dafa commencé benn liggéey boo xam si Jeux olympiques yi parce que comme Jeux olympiques yaa ngi ñëw SAPCO commencé na mu ne kenn du ma jiitu ci defar dëkk bi moo tax commune bu nekk département de Mbour jox na la oto ne la nettoyé ba Jeux olympiques yi ñëw nga xam ne zéro déchet day am ci département de Mbour ba touristes yi bu ñu ñëwee xam ne dëkk yi set nañu est-ce que pare ngeen pour gën a dooleel SAPCO ndax loolu ñu mën koo am. emploi yi aussi dañu waxoon ne ñi nga xamante ne main d'œuvre locale ñun ñoo ciy bénéfice wu maanaam ñi nga xamante ne main d'œuvre bi ne c'est mais gis nañu ne main d'œuvre non qualifiée boobu ah vous remercie monsieur le président.